Nous avons présidé l'atelier présider atelier de de validation plan stratégique développement du centre de centre national de formation du CNFA bu Rufisque euh, centre muy centre bu am solo ci ci réew mi nga xam nañ ko tabax bu de ko formation agent état mais également formation qui beaucoup renforcer ses compétences soit administration wala mais li véritablement centre permettre administration renforcer compétences compétences xarañ ñi nga administration depuis indépendance ak plan stratégique pour plan bu am ndax day ans ñu xol yan

ak ak jamono ndax centre de formation bi du moom rek centre de formation Sénégal dafa un centre de formation pour agent administration mais dafa war a également centre bi mën tax mu euh, centre bu attractif nga xamante ne képp ku ko romb di am yéene dugg fa yokk sa xam-xam administration bëgg également agent yi qui ci condition yu baax nekk ci environnement pour propice pour nga xamantene ne dañ fexé ba sen xam-xam ak sen xale ñu mën ko ñongal ba nga xamantene ne ñu nañu atteindre objectif yi ñu sas donc ci fànn dal ñuy xalat donc xalat la dañ koy soumettre évidemment à la validation des plus des plus hautes autorités pour ñu xam euh, ban destination le centre bi di am également sa vocation ñu xalat ko waye mën ñu mën envisager yenen euh, destination au centre actuel mais jàpp naa ne que tey it jaadu centre bo xam te nii bu mengo jamoro bu nek jam ñaajo par exemple nga xam te ko romb di nga xam ne li centre formation administration ñu fi parce que administration bëri ay stage ñu def bëri ay formation ñu def bëri ay séminaire ñu def loolu lepp jàpp naa ne bu ñu mutualiser euh, moyens yi euh, jàpp naa ne mën nañ taxaw am centre bu baax ba pare tayit renforcer compétence agent yi